sama doole sama xam bu bëre sama jom ak sama fit laa ko teg. waaye nag amateur doon en direct de. pay-per-view seen affiche point com. voilà mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar di leen wax ne ñu ngi toog ak coach Mame Less fas yéene décortiquer journée le 27 muy gala bi nga xamante ne moom la Fallou Ndiaye daal di organiser comme ni ko coach di waxee muy njarndéem coach maa ngi siyaar. non auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rabbil aalamiin ñoo ngi leen di nuyu di nuyu waa Equivox di nuyu DG di leen ziar bu baax di leen bëggee bu wér tamit di leen ñaanal jàmm aussi surtout encore ci bis bi ñu ñëw tey muy bisu laam. voilà euh, ki nga xamante ne moom mooy gala bu am am solo bi euh, Fallou Ndiaye organisé alors mu nekk gala bu am am solo alors damay ñëw ci yow ci combat bu njëkk bi nga xamante ne bëgg naa ñu décortiquer ko muy Cheikh Super Jamono. ak ki nga xamante ne moom mooy euh, bébé bismi noo gisee combat boobu. Cheikh Super Jamono boo ko xoolee ndaanaan na yokk na doole am na doole bismi ndooy nag kàngam la na ko Cheikh Super Jamono jox cër. parce que alliance biram bismi ndooy ko daan ci arène nationale bi. Euh, booy Cheikh Super Jamono daan expert que ci arène nationale bi. ñoom ñaar ñëpp ñu boole leen ci arène nationale bi. le jour si ki dàq bëre ëpp doole mën a bëre. yaay daan ci combat boobu. kuy favori bi combat bi. non xam nga boo xoolee ndaanaan lañ boole ak gone gi màgg am yoon. bëgg yoon mais li may wax ci xale ndaw yi rek bàyyi leen di jël màgget ñu xaw a riise ñi ci làmb bis bu ndooy xaw na koo jiitu tuuti ci làmb nekk un rancunier nekk nit ku doy waar ci làmb nekk ku mën a bëre parce que bu Alliance Birame mi mu daan ndaanaan la kon favori amul ci combat boobu. non da nga koy def balance. waaw parce que da nga koy def balance ay xale lañ. kii mën naa sàcc kii daan ko kii mën nay dóor kii jiwal ak moom. ngeer bu zap ak ki nga xamante mooy franc. non xam nga kooku responsabilité bi ngeer jël war naa xaw a duteloo franc tuuti. ndax lan. xam nga bu ki ñëwee xool ki fi ñëpp bàyyi mu ne jox leen ma ko na franc sóoraale boppam moytu boppam gëm-gëm gëm-gëm la ngeer di demee te li mu gëm moom la bëgg a appliquer le 27 incha allah rabbi kuy favori. da ngay teg foofu sa loxo. amul favori. man favori laa jox Franc jox favori. non amul favori. alors jóg bu ñu foofu jë dem ci jokkeel ak ki nga xamante ne moom mooy Mama Lamine. Euh, Mama Lamine ndaanaan la Mama Lamine saay saay la Mama Lamine der la wax naa ko contre Boursine mi ngi may dégg am na li ma ko waxoon contre Boursine ndox ndox nag du bàyyi yoonam parce que li tax du bàyyi yoonam. li mu gëm da koy appliqué. moom Mama Lamine day ñëw. non Jokal boo ko xoolee xam na ne ku mën bëre la kuy bëre bëre simple la da daan def bu njëkk fu compétition am mu dem léegi la ko xaw wàññi ndax ci milieu transport bi muy liggéeyee waaye na ko Mama Lamine jox cër. na ko Mama Lamine jox cër. bu ko Mama Lamine joxee cër. Mama Lamine mën na koo daan jël bu leer nañ. kon Mama Lamine mooy favori pour yow. foofu Mama Lamine lay favori. bu ñu jógee foofu dem ci feu rouge ak doomu dangu na nga gisee combat boobu feu rouge doomu dangu. Euh, feu dafa am ci lu mu jógee feu rouge en deux mille da daan yaa ngi dégg doomu dangu jóge ci ñaq jariñu fii ci stade Iba Mar ñu toog nii dóor ko góos mu daanu parce que doomu dangu bu la correct droite dalay pompé góos bi li may ñaan feu rouge mooy ne doomu dangu bañ kor pour mën a appliquer moom góos waaye boo xoolee ci bëre ci kani qualité bëre ci mën a bëre doomu dàngoo ko ko dàq. kon doomu dàngu moo fay favori. moo fay favori à 100 pour cent. bu ñu jógee foofu dem ci daj dëpp gi diggante Tyson 2 ak ki nga xamante ne mooy Gora Sock. laa ilaaha illallah. loolooy njariñ loolu ñoom ñaar. ñoom ñaar ku ci xeeb sa morom wala nga négliger sa morom bu la yeggee fenn fi dalay daan. maa la ko wax ñoom ñaar ku ci négliger sa morom. wala nga xeeb sa morom wala nga indi naan maa ko dàq bëre wala maa ko jiitu ci bëre làmb ji du ak maas tabante la te Gora Sock am na doole telewul bëre Tyson 2 da ko cee jiitu te ndaanaan la te mën naa bëre Tyson 2 nee na ko moo ko dàq xeex moo ko dàq bëre ndam yi ma am amu ko est-ce que Tyson 2 amul excès de confiance loolu stratégie la gëm-gëmam la mais làmb nee naa la ba tey lu ne xew na fi. mais mais mais ni ma gisee Tyson 2 ba arbitre sifflé day ñëw ci kaw Gora Sock. loolu mooy maninam dafa mën a xeex daa mën a bëre Gora Sock mën a xeex mën a song mën a bëre muy ñaar ñu tolloo dayoo. kon foofu amul favori. non da koy balance daf ko cinquante cinquante ba le jour si que le meilleur gagne. Euh, lan ngay wax Fallou Ndiaye. non falu ndaanaan la yàlla seede na ne ndaanaan yàlla seede na ne gëm-gëm lay deme te ku mën bés la bëgg bés fonk bés bi muy bés bi mu jël parce que boo xoolee le 27 bi li mu def li mu tëgg c'est pas facile. lan nga wax amateur yi ci combat boobu ci bés boobu. non mbër yi ñoo war am ngor. parce que mbër yi. bu promoteur bu defee engagement bu mel noonu jël engagement mel noonu. fay la xaalis. war ngaa jël sa xaalis bi ñu la fay jox ko say supporters ñu ñëw anime stade bi yëngal stade bi nga mën a bële lu rëy mais mbëri seen bopp da nga gis grand combat boo xam ne la indi du mat vingt cinq personnes. du yoon du yoon. lan ngay tàggatoo di leen ziar. di féliciter équipe nationale. di féliciter équipe nationale. di féliciter aussi Fodé Sarr. équipe nationale karaté bi mooy seen entraîneur. di di gërëm Maguette Seck mi nga xam ne moom mooy capitaine bi.